dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ci atum 1996 bi ñetti waxtu jotee ci guddi ci la Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké murid saadix boobu demoon àjjana bët set di le 29 juillet 1996 di bisub altine ñu denc ko ci Daaru Salaam ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké 1996 2019 di at yi nga xam ne moom la sëriñ Modou Rokhaya am ci àjjana ñuy sàkku ci jullit yëpp kenn ku ci nekk nga defal ko fukki lixlaas ak benn ak xasiid ak sindi di def ko addiyee sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacke